saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa Modou Xarañ Lo Balla Gaye de ak Eumeu Sène ñetti mbër yi ñetti champion yi la sunu làmb ne dajji ca xët wu njëkk ba di laaj kan mooy le meilleur yée le meilleur entre Balla Gaye de Eumeu ak Modou Lo loolee la journal ba di laaj bu dee Balla Gaye de la journal ba xamle mooy ñaar fukki combat ak juróom la am ñaar fukk ak benn ci victoire la ca am am ca ñeenti défaite maanaam 25 combat 21 victoire ak 4 défaite bu dee Modou Lo mu ne ñaar fukki combat ak ñeent ñaar fukki victoire benn combat la am fukki victoire juróom ñaari défaite ñaari match nul ak benn ba xam bu dee ay combat ko ëpp bu dee ay victoire moo ko ëpp Eumeu Sène moo ko ay moo ko ëpp Modou Lo waaye Eumeu ko ci diggante victoire gën koo néewi défaite waaye terewut ku ci nekk jaar nga ak sa morom foo xam ne ni kenn dootu la ko présenté bu dee Modou Lo ñaari yoon la taseeg Eumeu daan ko ñaari yoon Balla Gaye 2 ñaari yoon la taseeg Modou Lo daan ñaari yoon la taseeg Balla Gaye 2 daan ko ñaari yoon journal ba xam le ne champion yi a tàqale ndax ku nekk daan a neex gën caa yéeme mooy ñoom ñetti champion yi ku ci nekk doon nga roi des arènes ku ci nekk daan nga sa moroom ñaari yoon loolee moo waral journal ba xëy di laaj ñoom ñett kan moo ciy le ña bëgg a nekk les ci xeex bi ñuy xeex jàngaro ji bokk na ci association des lutteurs en activité bi association ci jiital Gris ñu ngay daje di dajale seen xaalis ngir participer ci xeex bi ñoom la bëgg mooy dajale seen koppar jënd ci ay don jébbal ko Abdoulaye Diouf Sarr ñi jiite bile collecte des du kenn ku dul Gris Bordeaux ak Yaxya Jóob Yékini ñu ngay dajale di xaar mu takku ba ñu jënd ci ay thermoflash ak ay zel ni association des sages def ñoom it noonee la ñu a def bu ñu jàllee ca Jeune Espoir dañ fay fekk saaba bu jàmbaar may laaj Abou Ndiassé moom saaba ci carrière mu ngi toll ci 5 combats